di leen wax ne tey dañ déplacé wu ñëw fii ci euh, Tëngéej plus précisément ñoo ngi Mérina open press kan kan lañ ñëw teewe ci tey ñu ne open press bu Karbala nañu may tuuti oh dëggkat yi dëggkat nañu may tuuti dëggkat yi nañu arrêté dëggkat yi may leen ñu tuuti dëggkat yi dëggkat yi may leen ñu tuuti voilà nice nice nice nice open press open press sama gars yi comme ni ma leen ko waxee ah fii ci euh, Tëngéej Mérina ñu ñëw teewe ci open press bu kan l'enfant série

qui est venu lui souhaiter bonne chance. Voilà, c'est pour ça que je suis venu à l'entraînement. Mais monsieur Arnaud, est-ce que vous savez que Karbala Ibo a un, un adversaire redoutable, redouté, réputé comme étant un gars très fort techniquement et très fort physiquement Est-ce que vous, vous, vous, le voyez aller, euh, aller au, au combat Il est en forme, il est en forme même. On est tous derrière notre champion en tout cas. Tu es confiant Confiant, on est en tous avec, on est tous avec lui, on est ensemble. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes prêts à soutenir Karbala, parce que, parce que, parce que durant les combats, Karbala c'est un garçon impopulaire. Il traîne un monde, fou. Il traîne beaucoup de supporters à l'arène nationale. Mais le jour du combat, des fois les supporters ils ont du mal à aller, au stade parce qu'ils n'ont pas tiqué Il faut acheter les billets. Il faut aussi payer aussi des cartes pour le transport des, supporters. Mais est-ce que vous êtes prêts à soutenir Karbala financièrement tu, tu, me donnes ça <laughs> comme ça, directement. C'est une question, c'est une ah. question. Moi, j'étais venu pour lui souhaiter les bénédictions et en tout cas lui souhaiter plein de bonnes choses. En tout cas, donc on est derrière lui, ça, y a pas de souci. Vous êtes derrière lui. On est derrière, on est derrière, on est tous ensemble. Mais est-ce que vous croyez que Karbala Godovic, un très grand champion d'Arbalès. Bien sûr, sans problème, confiant très confiant, on est tous derrière. Vous connaissez ses qualités Oui, les qualités techniques et tout le travail qu'il a fait, on connaît ça. Alors, monsieur vous voyez un jeune espoir comme ça, que vous le soutenez, et que vous venez assister, à son opposé, ça c'est quelque chose de grandiose. Franchement, par les félicitations, C'est pour ça, toutes nos bénédictions, on est ensemble. Merci. monsieur Arnaud nee na moom gëm na ni mën nga nekk champion bu mag mais dañuy ñëwaat ci open press bi tey comme d'habitude ah ñëwoon nañ fi ñëwaat fi hmm? ñëwoon nañ fi ñëwaat fi ñëwati fi benn instant euh, da nga jóge ci combat premier grand combat ci sa carrière arène nationale jour boobu nag bi nga ñëwee ak si da nga da nga mobiliser da nga lu bari c'était le 16 à l'arène nationale Or Diouf moo organisé woon nga bëree sa premier grand combat ñàkk muy sa digganteeg fëgala bu ngor laa nga ñëw wara a rectifier le tir war a sa yoon avancé parce que Tëngéej làmb ji dañ gëm ne Karbala mi c'est un c'est un champion mën na nekk un très grand champion nan nga waajalee lasta ndeer aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu kilifa bàyyam sa Fall di ko ñaanal yàlla yàlla yokk taxawaayam yàlla wéral wéral ko kàttanal ko muy gunge ba si kanam kanam kanam kanam di nuyu képp ku fi teew rek muy samuraa yi di sama yaay yi di sama papa yi di sama mag yi di sama rakk yi di sama doom aussi tamit maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi tamit presse bi aussi tamit man awma seen fay parce que ku si nekk fi nga jógee dafa sori nga bàyyi nga def déplacement ak dérangement ñëw fii maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jégalu bu baax a baax si guddee aussi tamit maa leen koy jégalu bu baax a baax tey bi dafa bari waaw waaw waaw tey ñetti open press am na mais presse bi comme d'habitude du respect pour tout le monde xeebuñu kenn xeebuñu kenn bësam ku xewle dañu déplacé wu ñëw teew kon respect ci presse bi waaw waaw presse bi moom ñëpp lañ ci nekkal amul mbër mu mag amul mbër mu ndaw kon loolu dañ leen si santa ñun ñoo ko yéen ñoo far mënuñoo dem sans yéen yéen mënoo leen dem sans ñun parce que yéen yéen a ñuy génn saa su ne di di di gën a yéegal suñu kot kon yéen amuñu seen fay bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm aussi tamit. Karbala est-ce que xam nga ki ngay bëreel yaa ngi war a bëri ak mbër mi nga xam ne gars yi dañ naan daan jooy daanu jooy maanaam bu daanee day jooy bu daanoo day jooy yaa ngi bëri ak Lac Tonnerre dëgër këcc wow ko mën a bëri benn xale mësu koo yem waxuma pour tiital la nag wax dëgg yàlla maa ngi jégalu tiitaru ma la de. dama lay wax li ci ne. Last Nder c'est l'un des meilleurs sa génération benn instant nag mën naa ne sax dalaa may sens parce que lim la jiitoo ci làmb ji bari na est-ce que xam nga ki nga jël bu baax a baax a baax fi nga dugg est-ce que baax na. waaw Lassa moom champion la dañ koy jël dañ koy jox cër bi moom moom nangul nañ ko champion bu baax a baax ndaanaan la bërekat la am naa ay ndox du tey tamit góor gu dëgër la. dëgër këcc loolu yëpp xam nañ ko si moom. champion la dox nañ ko wàcce waa ma dox ko cëram. Hmm. mais cër bi fi mu yem mooy. fii quoi bu arbitre bi sifflé noo cër amatul foofu damay dagg jéem a attaqué ko fañe ko gañe ko si kàttan waaw benn instant comme d'habitude ah, dama ne dama daan faral ngay dama daan faral dégg ngay wax naan sa adversaire maa la mën-mën këlam. genre yooyu est-ce que gëm nga ni yaa mën lastandeer yow. déggoo ma wax wax naa ko waxaat naa ko lastandeer yow kila man kaka man maa ko man ba yegg si foofu. Hmm. loolu jour si aussi bi naa la ko waxaat te dinaa ko jëfe dinaa ko jëfe incha allah. que sa préparation jaar na yoon am na ku taxaw fii léegi benn journaliste dalaa xool ne ne ma Seydina ma ne ko naam mu ne ma dafa mel ni Karbala dafa wàññi poids loolu am na wala amul. non ñun ñoom dañuy liggéey rek dañuy liggéey rek xamuñu dañuy wàññi poids xamuñu dañuy yokk poids parce que dañuy teg ci ay loxo di nuyu aussi tamit suñu coach su Bolo des sport moo ñu yoroon wàllum salle ak physique physique bi kii moo ñu si yoroon coach Alain Elage moo aussi tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm écrit ba waa écrit aussi tamit ñu ngi leen sant ku si mel ni coach Baye Mandiaye coach Ndanaan performant lébu gi ñëpp dañu doon jàppale xam nga ñu leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di nuyu sama waa écrit di nuyu aussi tamit sama mbokk mbër yi di jël nuyoo ko xanaa di ko teg sa wax ngay sant gërëm gërëm ak sant mën nga bàyyi ba fin maa ñëw ñëw di sant aussi tamit sama mbokk mbër yi di jël nuyoo di ko teg si loxo Mama Yaa soldaaru Bamba doomu dàngu xam nga ñu joxoon ma ko gaa yëpp ñoom Ronaldinho góor gi étudiant xam nga gaa yëpp ku ma lim daal lay juum quoi maa leen sant bu baax di leen gëm. Hmm. dama la ne. waaw un spécialiste xool la ne la waa ji dafa mel ni dafa wàññi poids da ngaa wàññi wala da ngaa yokk wala même poids bi nga gardé. nee naa la ma sa man sama coach man defar rek ma def ko bu arbitre sifflé génn seen diggante la sa ndeer ne la kaa ñu wuree gànjël teg teg yi Karbala kaa ñu bëree looy def bu ne bu la woowee ci bëree looy def. moom sant ma ko dara na ñëw rek ñëwal la jour yi nga xool. bu la ne kaa ñu bëri nooy def. dañuy bëri dañuy xeex. boo buggee ñu xeex cinq minutes. da ngeen na gars yi nee nañu da wow. waaw koŋ ngi. waaw ah moom dafa wow dafa wow yow yaay koŋ. koŋ nga ngi taaw. Badou Badou Mbaye Badou Mbaye looy laaj waay. dégg nga Badou Badou Mbaye. Seydina maa lay maa lay kontaanee eh, man benn benn question rek la am pour Karbala. Eh, gis nañu Lassender. Eh, différent de pois bi wala différent de taille bi. moom dafa nekk dafa nekk njool. est-ce que mën lu indil ay jafe-jafe ndax préparé nga loolu Karbala. waa que waajal nga. nga xam nga ay spécialiste ñoo fi taxaw ah. nee na lastaneer de la soupe. relance bi jour J est-ce que du avantage am maanaam yow est-ce que yaa ngi suuraale loolu. suñu écrit am na modèle bu ne surtout ta tamit am na modèle bu ne loolu du doon question. ñaga question waaw waaw Karbala ngay bëreeg mbër moo xamante ni ñëpp ne nañ moo la ëpp expérience bu jëm ci wàllu làmb mhm. combat mi si bëri dafay xeex duma adversaire bi moo xam lay daan moo xam dafay daanu est-ce que nga combat xeex bu yàgg parce que ay combat bu faral mhm. waaw njaga ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax waa loolu loolu loolu sóoraale nañ ko bu baax a baax a baax amul benn problème parce que booy dem guerre da nga yóbbu sa arme yëpp pare nañ pour tout lu mu andi rek incha allah ñu fekk sa kaso te xaaruñu ko sax muy andi moom ñun dañuy ñëw appliqué ay xale lañ dañoo nekk si yoon suñu yoon du fii quoi ci kaw ñu si kaw grand combat bi ñun foofu mooy suñu yoon. waaw mais am nañu waxoon loolu ah euh, Ndiaga am nañu waxoon loolu. Euh, kii di Lastander croisé na fi un jeune boo xam ne dafa taxawoon 6 combats 6 victoires bëgguma tudd turam Lastander moo këpp yalwaanam da ko jumloo nax ko Ndiaga nee na la Lasta daf la ëpp expérience ci làmb ci làmb dafa bëri. jiitoon na la ci làmb durant des années moo la ëpp expérience Badou Mbaye nee na lu léegi moo la ëpp kon ce qui veut dire que ne il a des arguments faire valoir maanaam jour ji Lac am na lu mu indi mais yow est-ce que maanaam lu mu indi est-ce que pare nga pour fàtte ko. la force élimine l'expérience. la loolu français la maa ngi làkk français nga ne la force élimine l'expérience. c'est tout jéem a tàkk amul leneen. mais des fois l'expérience élimine la jeunesse. bii nag la force élimine l'expérience. waaw. dama koy rëkk. dañoo gis ci signature yi ñu daje yëpp. waaw face à face. excès de confiance. dafa desee jox cër bi nga xamante ne mooy Lassander. Ah. par rapport ak as bi nga xam ne Lassander am na ko. Mhm. ak moom par rapport ak as bi nga xamante ne am na ko. est-ce que bu bëree loolu ci arène nationale mënu ko déstabiliser. maanaam wax ji dafa leer nee na dañuy gis ne à chaque mais comme d'habitude ah kii il est toujours confiant depuis toujours say combat c'est toujours confiant mais nee na dafa mel ni da nga dese respecter Lassander loolu noonu boo ko indee jours yi. nga ñëw andi benn fougue de jeunesse benn rage de vaincre jàpp na kii euh, maanaam lu mu def daanu est-ce que loolu mën la jouer benn mauvais tour. non du ma def dara respecté naa ko jox naa ko wàcci waan jox naa ko cëram mais góor li ma la sànq arbitre bi bu sifflé ma dagg ak jéng yi wut si kooku duma ko daan ko si kàttanu yàlla ñu ko tëggee. Euh, sa waay fii laa la koy waxee du yomb daan Lastander du yomb mais daan Lastander. daan la sa ndeer fan la la mën a yóbbu ci làmb yow nga bëree daan la sa ndeer fan la la mën a yóbbu ci làmb. waa si si kanam rek parce la sa champion la ndaanaan la mbër la mbër kaamil la si kanam rek si man dama war a bëreeg samay morom ñi si kaw ëpp ñoo ma dàq ñu maa mobiliser ñu ma bëre ëpp ñu ma sañ-sañ kon luy problème bi combat bi bu ma si jógee incha allah dañuy am ndam si kàttanu yàlla si kaw laa jëm.

une journée un gala moom la tëgg parce que sept grands combats la jël boole ko ci benn jour nga war a bëri ci jour boo xam ne ñi ci bëri ñu ci bari dañuy mobiliser nee na la côté autorité yi les autorités de Rufisque est-ce que pare nañu pour accompagner la moom laa wax monsieur Arnaud léegi ba mu fi taxawee maanaam côté bloc ticket yi côté car yi parce que nag Karbala li ngay mobiliser macha allah néew na say morom ñu koy mobiliser mais tamit booy bu ñu paree pour demee saat amuñu ticket amuñu car dafay am ñu fi des te ku fi des rek sa waaw ñun monsieur le maire lañ am Omar foofu lañu waroon commencé di ko nuyu bu baax di ko sant démb rek seet si nañu am na ay kàddu yuñ tënk incha allah si kàttanu yàlla bu soobee yàlla lépp dina jeex biyee yëpp ak kaar yëpp incha allah kenn du ma fa ëpp mbooloo. je kii quiconque ñëpp laa défier grand combat ba petit combat. ñoom ñëpp laay noyé mbooloo incha allah ce qui veut ji boo duggee arène nationale danañ xam ne doomu tëngeej bi ñëw na. loolu par la man fu ma saa saa yu ma dugg see gars yi xam ne samuraay yi ñëw nañ samuraay yaa ngi wéruñu lan ngay tëjee lan ngay tëjee ñu waajal incha allah lundi lan ngay tëjee. go ah. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm presse bi di leen jégalu. Seydina balaa muy tëj. Eh, dama dégg dama dégg lastaneer mu ne. danoon daw sama jarbaat. dal ci man. Ah. Eh, ndax Karbala mën nañu leeral ci loolu. waaw lastaneer nee na da nga doon daw jarbaatam far dal ci nijaay ji te nijaay ji gën a garaaw jarbaat bi est-ce que mën nga leeral loolu. jarbaatam jarbaatam teewleen fii la dëkk. kan la ci lastaneer mais loolu nañ ci def kot amul problème. nee na dama doon daw dama doon daw darwaat bi man jar après combat naa naa leen ko leeral yéen mooy moo man maay moom sëy mooy man di ko félicité waale aussi tamit champion la ndaanaan la dimanche passé rek la xam nga daan benn top 5 bu waaw ndaanaan la digganteem Pama ma Fall numéro 2 say jàmbaar ñu ñu ngi koy félicité bu baax a baax suñu rakk ju baax la bu disponible aussi tamit waaw ñu koy sant waaw dafa yaru di ñaanal aussi tamit ama neex mooy jël la 24 di ko ñaanal ndam lu sedd guy bu yi ñoo jox ma ma dàbbale mooy bëre dimanche nga bëre lundi waaw day daan lan waajal suuti waaw kii mbaaw la dëkk te mu mbaaw lay liggéey maanaam dara ëmb ko si jëmm ji ndax loolu bi nga ko déggee amul dara lu mu def ci yow. non defuma dara. maanaam lasta leer nee na moom mbaaw lay liggéeye te yow mbaaw nga dëkk. Euh. maanaam dalaa xam bu baax. Euh. te yow xamoo ko est loolu yaa ngi koy sóoraale. waaye lasta xamul woon fi muy taxaw moom avant muy comprendre gars yi tegal nañ ma CMA bi yëpp. Ah. def nañ li ñuy def def nañ li ñuy def bu yàgg moom na ñëw rek code bi am naa CMA bi. na ñëw rek na amul benn problème. lan ngay tàggatoo bu dee kenn amul beneen question kay bu dee kenn amul question mu tàggatoo lan ngay tàggatoo. waa di sant ñëpp di leen gërëm di sant presse bi bu baax a baax a baax di leen jéggalu waare guddi na trop mais ñu ngi jéggalu xam nga rek waaw di bëggee waa Mérina waa Thiawlène waa Colobane waa Mengo waa B2 waa Këri Suuf waa Jaloore waa Kasor guy gi waa Garga xam nga Dangu xam nga Coxo Baay Faal yi xam nga jokkul kaw jokkul xeer. di di bëgge waa xam nga rek waa Jakaranda bi ah maa leen nu bëgge baax di sant waa mbaaw xam nga waa waa Thiaré surtout waa Ndiréen waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di commencé si monsieur le maire Omar Ciss xam nga amuñu fayam bu baax a baax moom waaw am na lu ñu wax père Iba Ndiaye Sall aussi tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko woowaat si combat bu baax a baax a baax si bologu tike yi président As Sall aussi tamit ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax bologu tike yi Paga Boy international bi aussi tamit ñu ngi lay woo si combat bi ngeen ñëw jàpp si Broc ñu ngi lay woo si combat bi bu baax a baax a baax ñaambay aussi tamit ñu ngi lay woo si combat bi nga jàpp si am pro bi international bi am démb gisante nañ ñëwal taf sa loxo bu baax a baax a bolo gi ticket yi ñëw na waa booy dañu war a dem esat xam nga di woo aussi tamit Madiagne doomu ndey Youssou Ndour le grand champion ñu ngi lay woo bu baax Aliou fay bu Kër Ndiayloo ñu ngi lay woo di woo xam nga samuraay ñoom Pape Samba ah ñoom ñoom jam xam nga waaw kan Njaay TFC aussi tamit ñu ngi koy woo ah Serigne Saliou woo naa la dànk rek <laughs> di woo xam nga sama waa direction bi ñoom moom du ma leen sant dama leen di bëgge rek waa direction bi ñoom ñoom ma man maay ñoom ah béy Papa Yada Papa Yada aussi ah di bëgge xam nga say jàmbaar nduumaar xam nga aussi tamit waa di leen woo si côté non à la violence rek ñun moom ku ñu xam xam ne xam ne non à la violence lañuy def dañuy ñëw supporter seen mbër si fair play ñu jàpp gan gi daan ko ñëw neexal di sant Badou moom moom mooy les fatigables Badou Mbaye monument de Rufisque moom champion waaw monument bi juuti ba lañ ko war a def mooy mooy monument bi quoi moom amul fay bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp noonu la fa demee mbokk mbokk géwél yi aussi tamit maa ngi sant di ko teg si loxo Ousmane Fall asubay chanteuse bu mag a mag bi Babacar Asiko maa lay sant bëggee waa waa déranger bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sama yaay yi may toggal añ dañuy billaahi dañuy jël seen leket di ket suba ba ngoon ngir man barki Seydina Muhammad looy wax Baba Diaw promoteur bi Baba Diaw moom waaw moom moom dina gisal boppam amul wax fu bala fubalu muuma la amul sax wax incha allah RV le 25 décembre incha allah incha allah départ bi 14 heures la pire bu ñu kenn njiitu foofu ñu dem feesal foofu yëpp incha allah aja sama mi ngi noonu rendez le ah. lundi 25 décembre 2023 à l'arène nationale Karbala face à l'Asséner sama bu leen kenn nettali yàlla